dal leen ak jàmm si seen numéro bu njëkk si li gën a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ci dendok afrique gi li ci gën a fës bokk na ci benn kaaw feebar bi nga xam ne mooy coronavirus ñu nemee ko fële nga xam ne mooy ca égypte naka noonu bokk na ci li ci gën a fës ci xibaar yi Mike Pompeo nekk ndawal amérique bi saytu lépp lu jëm ci wàllu bitim réew war a amal ab tournée fii nga xam ne mooy sénégal angola ak éthiopie bu ñu fa jógee dinañ dem ci réewu mali nigéria ak réewu mauritanie naka noonu ak réewu soudan nees gis ñu dikk ci yaatal gi mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dal ak jàmm Afrique gi fa nga xam ne mooy réewum Égypte ñu nemmeeku fa kaaw jàngoro ji nga a nemmeeku fa téeméeri égyptien fa nga xam ne mooy wante Chine ngir delloo ci leen réewu Égypte ginnaaw bu leen defee mise en quarantaine toll si ñaari ay bés mu leen libéré ngir ñu dellu seen i njaboot Égypte dakkal nga xam ne ñoo doon Chine ci compagnie aérienne nationale ginnaaw coronavirus ginnaaw bu Égypte ñu del ñëw bi nga xam ne mooy réewu Sénégal war a waxtaanee li nga xam ne mooy association bi ëmb banque centrale nekk naka la def pour mën taxawal benn banque centrale ci fi tamit ñu war a saytu ci li nga xam ne mooy terme de référence yi nga xam ne mooy dogal li nga xam ne mooy jënd ak jaay ci diggante réew yi nga xam ne ñooy réew Afrique yi ci monnaie bu bees boobu ak li nga xam ne mooy opération ci wàllu système de paiement ci biir denduk Afrique yi naka noonu ak li nga xam ne mooy système de paiement ci wàllu téléphonie mobile ñetteelu poñ bi nag mooy ñu am ak taxaw seetlu ci li nga xam ne mooy liggéeyu communauté de supervision bancaire africaine bi nga xam ne ñoo ngi ko nas ci diggante atum 2020 jàpp 2022 ba tey ci wàllu xibaar ndawal Amérique yi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu affaire étrangère di Mike Pompeo war a amal ab tukkib nemeeku fi nga xam ne mooy denduk Afrique yi li ko dalee fukki fan ak juróom ci weeru février ci samedi ji jàpp 19 février ci ci diggante Sénégal Angola ak Éthiopie Mike Pompeo wara amal ak tukkib nemmeeku ci Afrique subsaharienne di ab bërëb boo xam ne seetlu nañ ne président américain boobu di Donald Trump mosu fi teg tànk depuis bi mu nekkee njiitu réewu Amérique ci fàttali ci atum 2018 ki nga xam ne mooy Rex Tillerson nekkoon ndawal Amérique ci jamono jooju nga xam ne moom la fa Mike Pompeo wutu amaloon na tukkib nemmeeku boo xam ne bi mu ci jógee sax moom Donald Trump da ko wàccee woon teg fa ki nga xam ne mooy Mike Pompeo réewu Amérique di xam ne ne tukkib nemmeeku bii nag di nga xam ne ñu ngi koy war a amal ci réewum Sénégal Angola ak Éthiopie dañ ko teg ci base démocratie bi nga xam ne moo ngi dox ci réew yooyu ak jàmm ji nga xam am na fa waaye nag yenn xeltukat yi gis ne teewaayu Amérique nag ci réew yooyu dafa aju rek ci li nga mooy indi ak kujjee nga xam ne gis na lool ci ñetti réew yooyu nga xam ne mooy Sénégal Angola ak Éthiopie ba tey ci wàllu xibaar njiit réew xam ne def na ko ci yenn média bitim ne pare na ngir jàkkaarloo ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy chef armée rebelle mu nekk nag lu bees ci doxalinu njiitu réew bu Mali boobu nga xam ne depuis mu nekk président de la république bu Mali atum 2013 ba tey a bari mooy naka ba nga xamne ñoom ne ñooy rébellion nekk réewu mali même bu fekkee ne sax ak waxtaan daan dox ci diggante nguur gu mali ak li nga xam ne jihadiste secret li waral ñu daan libéré yenn prisonniers yi naka noonu ñu daan bàyyi yenn jihadiste yi tamit ñi nga armée mali doon leen loxo mali amal déclaration ji passé ci média yu france 24 ak li nga xam ne RFI ñu seetlu tamit nag ci réewu mali googu ci guddig alxamis jàpp aljuma ak cong gu métti goo xam ne ci dëkk bi nga xam ne ogasugu nekk ci digg réew ma ci cong googu sax seetlu nañ toll ci fanweeri nit ak benn ci ci dal nañ fay seen bakkan ñu ne mu ngi ci ay nga ay dogon ci fàttali ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2019 bi sax lu toll si téeméeri nit ak juróom benn fukk ay civil bokk xeetu pël gi rey nañ ci nga xam ne mooy dëkk boobu nekk ci frontière bu Burkina Faso di bërëb boo xam ne dañ fay faral di nemmeeku ay jàppante yu métti diggante pël yi dogon yi ak bambara yi depuis atum 2015 rax